turam ak santam tey kontaan naa te dama ému parce que lii ngeen def daf di lu rëy a rëy boo paas dépassé sax affaire Ousmane Sonko daf di lu rëy a rëy ci sama xol kontaan naa ci li ngeen def trop di leen ñaanal nag fi ngeen bëgg egg yàlla neen fa yàlla eggale yàlla lafal leen cat bu baax a baax a baax a baax a baax ni ngeen àndandoo tey ñëw si kër gi yàlla bu mu mas a dañ li doxoon seen digganteeg lu xaw a bëggoon loxo yëpp yàlla na ko yàlla faagaagal ngeen continuer mel nii ngeen mel bu ko defee lu ngeen song man ko waaw olof yi nee nañu boo jëlee juróomi banti bale bu koo damm foo ko dammee mu damm waaye boo jëlee saa yu bale bi ñuy balee boo ko bëggee damm da ngay bës ba sondu damm te bale bale rek la moo tax àndandoo rek moo am maana loolu laa leen di ñaan di ñaan kenn bañ a dox seen diggante di ñaan kenn bañ leen a bu fekkoon ne sax am na lu tilim tilim seen euh, seen diggante bis ni ki tey ngeen raxas ko ba mu set ngeen àndandoo nekk mel ni ngeen war a mën mel bu ko defee li ngeen bëgg ci seen réew yàlla may leen ko ñun dañ leen di gunge rek ndax ñun nag lañu suñu wàll wéy na waaw waaye yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla laf cat parce que loo gis rek kef cat a koy indi yàlla na yàlla laf cat yàlla bàyyi leen ak seen euh, leader ba fu ngeen bëgg a eggale Sénégal ngeen eggale ko fa. loolu rek laa amoon lu may wax waaw. ah nu ma koy dundee a ah, ni ngeen ko dundee yenn ñëpp. ni ko ñëpp dundee laa ko dundee rek du lu ma neex. parce que su ma nee neex na ma wala su ma nee aw ma ci lu lu tàng xol dama dama wax lu ma neex waaw mais nag loo gis nag nit koo gis rek ci àddina waxoon naa ko fi benn bis benn journalist ni koo gis ci àddina dafa am sa destinée dafa am balaa judd lu ko yàlla fu ko yàlla teg yoon bu ko yàlla teg ne fii dina fi jaar fii dina fi jaar fii dina fi jaar gëm yàlla nag wóolu ko moo ko gën waaw. yan kàddu nga yóbbante sa doom Ousmane Sonko jamono bi. Ah, Ousmane Sonko moom du ma ko yóbbante moom du yóbbante dara dama ko naan rek mu mu mu góorgóorlu rek. waaw mu góorgóorlu rek ndaxte te sax ci li nga xam ne moom lañ ko yare woon. Mm-hmm. muy njub ak jubal. loolu rek laa koy wax. waaw yaa ngi woote dal tamit ci réew bu baax a baax a baax dal bu baax a baax a baax lépp lu am nii depuis affaire bi amee du duduma neex du suma sañoon dara du am loo xam ne lii day yëkkati dënnu nit wala mu yëkkati jëm wala mu yàq alalam dal bu baax laay ñaan. ngi woote itam ñu war wax dëgg ñu wax ci mi. ah dëgg rek sax dëgg moo jëkk mooy mujj. waaw. dëgg moom moo jëkk mooy mujj ku ci wax lu dul dëgg itam bu soobee yàlla yàllaa ngi fi te yàlla moom dëgg la.